Kouthia fan yee nga ñu nemmeekoon demoon nga seeti Karim Wade est-ce que mën xam Kouthia Karim Wade lu ñu lu ñu waxtaan. waaw li ci mën a am ci gàttal mooy moom bi ma wooyee ba ma ñëw seeti ko dama bëgg dama xamal ne ma carrément li mu regretté ci àddina mooy hmm. ñàkk jot bi ñu amoon pour toog di déglu heure Kouthia. Hmm. parce que ci ci prison bi la xamee Kouthia. Hmm. essentiellement li ma wax nee na ma malheureusement ci kaso bi laa la xamee. ak li ma nekk Sénégal di gouverner yëpp ak sama papa ci jeunesse mille dama écouté wax dëgg suivre mm. mais bi ma demee ba kaso bi laay soog a xam laa valeur li ngay def daan mm. na ma bëggoon naa am lépp loo xam ne œuvre la boo def sama papa ak man pour moom mun ma gën a bàyyi xel ci li ngay def ba pare mu ne ma que euh, dama ko def star ci kaso bi parce que moom il avait pas compris au début les gens voulaient waaw Kouthia ngay tooñ mais après lañ soog a comprendre que ne mm. tax na moom si seen dégg mu gën a sax maîtriser langue olof gën koo xam parce que moo yu bëri la koy jëlee deuxièmement tamit rêve dafa su génnee daa day ñëw nekk prisonnier ci biir Kouthia man ma nekk pénitentiaire di koy garde su mu mën a rendre ma bi moom moo koy nekk star bi moom la ñuy waxaan démb tëj ko Kouthia démb li dañu dem ba yaakaar ne sax Kouthia mooy Karim parce koy wax moom lañ koy commenté moom euh, seen seen waxtaan olof olof mu tontu su ma waxee français mu tontu donc bu waxee olof tontu en français su ma waxee français mu tontu tamit en français donc li ci ëpp mooy olof français hmm. su ma waxee olof mu tontu français saa bi ko moom dégg na olof. voilà mu nekk benn extrait bi nga xamante ni jëlal nañ seen biir émission dox daje. bi ñu leen fas yéenee tegal ëllëg Kouthia nag ñëw na ak ñun si point yu bari. bu nga bëgg a xam yan point la suba du fenn furul xalima point com. kale ko foofu gaañ yi à demain ak dinaa Seck.